dal ak jàmm fii ci Touba Mbacké mooy dëkk Cheikhul Khadim suñu ginnaaw foofu ngeen di gis ñu bind masakinul Cheikhul Khadimu mooy la résidence Cheikhul Khadim fii nag ñu ngi ci waacaa yi téeméer ak ñaar fukk ak juróom meelu édition bu magal bu Touba tey ji ci altine ñu ngi ci wërndalu résidence xaadimu rasulu fi comme ni ngeen ko gisee mbokk yaa ngi bawoo fu nekk di wutali euh, Touba. nga xamante ne foofu la autorité yu bëri ak ñi nga xamante moo xam ñi nekk ci tarixa murid waaye ñi nekk ci état bu senegal ñëpp ñi ngi wutali di wutali bërëb bi ngir rek mun a ñëw safante ak askanu muridu fii nag ci résidence xaadimu rasulu mbedd yaa ngi commencé fees donte sax nemmeeku ñu fii ay askan woo xamante ne yu bëri comme nuñ ko daan seetlu bu màggal daan desee ay ñaari fan waaye nag affluence bi fii euh, ñu ngi saytu ni ñu bëri ñu ngi wutali euh, bërëb bi euh, fii ci euh, Touba Mbacké